attention la ilaha illallah la ilaha illallah eh Reug Reug daan na Gris 2 jëli bu mas am la ilaha illallah eh doomu caaroy bi jëli bi rëy na dinañ xeex dinañ bëri attention sang dama la jël Jackson da koy plaqué da koy plaqué waaw waaw. waaye xale baa ngi. mais defaguñu loo xamante ni mën nañu wane ni day jeexal bëri. mooy dafa bëgg lu wane ni day jeexal bëri attention Liss Ndiago la ilaha illallah. fàq na ko eh, fàq eh, bi wuyu lii. xale bi xeetu bëri bi bëri mooy lan. daan na ko ci ñetti action. ci ñetti action Alaaji Paala. ñetti action na ko mu mu mu waaw mu puus ko mu toog muy bañ. mu kal ko mu kal ba. sañ ko mu jàpp. aywa ci la bëre ko laa ilaaha illallaah. Nooro. Nooro daan na booy na jël buri. eh Bruno. eh dama tardé jël ba. laa ilaaha illallaah. yàlla ba Youssou Ndour eh attention Liu Dior booy war na ko nombo war na ko nombo de ndalu nag moom Liu Dior lu mu nar a def la ilaha illallah la ilaha illallah eh maninam la la ilaha illallah doomu fas bi maninam la eh maninam la yàgg na dañuy daan ci même ci li traditionnel